tàmbali ubbi ak tëj wayndare wuut bu bees ubbi ak tëj jaare ci door ngir ñu ubbi wuut fii ñu nekk nii muy door li ñu jëkk def mooy bés w o ak r ak d boo leen ci saa si génneel nañu wóot ñaari junni ak fukk ñett indil ñu mboolem wóot yi fi nekk luñ ci soxla mooy bii ñu daldi di bës ngir ñu dugg wóot dañuy ñëw ci wayndare ndare bu neen ñu daldi di bës ubbi nañu way ndare wóot ngir ñu tëj jaare ci bësukaay tëj bi dañuy ñëw ba ci wàllu ndeyjoor ci kaw fii ci màndarga tëj bi muy ndir ñu tej ñu dal di bëss bi moy yoon wu njëkk bi léegi nak lan lañu bëgg def ubbi jaaré ci ëtt bi ak bësukaayu ndeyjoor bi bo leen xolé ñu ngi ci ëtt bi ci biir ëtt bi amna ay njunj njunj bi ci soxla moy bi woot ñaari junni ak fuk ak ñatt dañuy def moy dañuy bëss ci kawam ak bësukaayu ndeyjoor jinax ji mu génneel ñu ñël lu mengo ñu ñëw ba ci ndigal lii di ubbi ñu daal di bës mu ubbil ñu wóot mais yegguñ ci wóot ñu bës wandare bu neen mu ubbil ñu wóot ngir ñu tëj dañu defa noonu rek dañuy ñëw ci kaw ci turu bopp bi fii ñu daal di bës ak bësukaay ndeyjoor jinax bi mu génneel ñu njël lu méngoo ñu ñëw ba ci suuf fii ci tëj ñu daal di bës tëj na ko léegi ba tey amaat na beneen yoon yoon wi ñaari yoon yu teglo lañuy ñuy bës ba tey ñi ngi ci ëtt bi dañuy ñëwaat ci ñu ju ñu bës ñaari yoon yu tegloo mu ubbil ñu ñëw ci waaye bu nen soo leen xoolee ci kaw am na lu ñuy wax laatu jumtukaay yombal jot mooy bërëb bii am na ay njunj ñu ñëw ba ci ñu wóot bu ndaw bii ñu bës ñaar yoon yu tegloo boo leen seetloo tëj na ko kon am nañu ñetti yoon yu ñu mën a tijjee ak yu ñu mën a tëjee wóot yaay xool bi jàppandi ci yow nga daal di koy def tudd ak denc wayndare tudd ak bu ñu seetloo ci turu bopp wóot bi fii wayndare benn fi nekk ana mu dëppoo Moy, way na woon bi amagul tour léegi liñu bëgg def moy jox ko tour yoon wi ñi jaar moy dañuy ñew ci taxañ ñu dal di bëss ginnaw bi ñëllu taxañ génne ñu dañ ci niki ñu xol ci walu digg bi fi mu ñu bindal nosukaay ëmb yi mujju fan lañu bëgg ci suñu wayndare bi ñu def ko ci wayndare yi biñ ko bésee mu génneel ñu boyetu waxtaan denc niki bi ñu ñëwee ci turu taxañ fii tànnal nañu wayndare yi léegi dañuy bind tur wi nga xam ni moom la bëgg suñu wayndare tudd ko lu jol arafukaay bi bind jàng wóot ñaari bi ñu bindee suñu turu wayndare ba pare li ñuy def mooy dañuy ñëw ba ci bësukaay bii di denc ñu daal di bës mu laaj nu dees na kawel sa wayndare ci xeetu taxañ yi gën a bees ma ne ko waaw kay léegi boo leen seetloo ci kaw fii léegi tur wi nga xam ne moom la ñu jox suñu wayndare wóot li mi ngi tudd jàng wóot ñaari junni ak fukk ñett kon wayndare bu amagul tur nii lañu koy joxe tur ubbi wayndare bu yàgg ubbi Waydare bu yàgg léegi li ñu bëgg a def mooy ubbi Waydare boo xam ne bi am na tur ba nopp mu la ñuy wax Waydare bu yàgg yoon yi bëri na waaye bi ci gën a gaaw mooy ñu ñëw ci laatuwaa boo leen xeet xoolee fii ci suuf njunj yi ñu ñëw ba ci njunj bii di warukaayu taxañ ñu daal ciy bës ci saasi mu ubbil ñu palanteeru PC bi ci biir palanteeru PC bi ñu ñëw ci wayndare yi bu ñu fàttali foofu la ñu dencoon suñu wayndare ñu daal di bës ñaari yoon yu tegloo ngir ubbi ko biñ ko ubbee ñu xool ci biir fii lan moo fi nekk ci wayndare bu ñu xoolee bu baax dinañ gis suñu wayndare mi ngi nii mu tudd jàng wóor ñaari junni ak fukk ak ñett ñu daal ci bës ñaari yoon yu tegloo ngir mu ubbeeku boo leen seetloo ubbi nañu suñu wayndare bi li koy mandargaal mooy jàng wóor ñaari junni ak ñett moo nekk nii ci turu kaw bi kon nii lañuy ubbee Waynare bu ñu jóg tur ba pare ñu koy wax Waynare bu yàgg